à pour ne pas dire jamais parce que je n'ose pas dire jamais euh, mais man li ma koy dégg yëpp ay sorties yi muy génn yëpp c'est rare que ma gis mu doon sortie boo xam ne en réalité dafa favorable ci Ousmane Sonko. Mm-hmm. man li may gis Boubacar Ba yëpp ci ay discours am ba c'est c'est ce c'est ce même discours bi nga xamante ne moom la en fait le discours n'a pas changé vis-à-vis de Boubacar Ba mm-hmm. est-ce que Boubacar Ba également aujourd'hui en tant que forum du justiciable euh, maanaam nit la ko xamante ne da ngay accorder crédit ci li muy wax euh, c'est des questions qu'on se pose parce que bu ñu demee bañ naan euh, Ba travaille à la présidence donc kooku à la limite euh, am na loo xamante ne boo ko waxee nit ñi ñoom moom seen bopp quoi mën nañu mën nañu la dégg Euh, te ba la dégg ni nga ni nga ni nga ni nga foog ni nga foogee noonu la ñu yaakaar ñu dégg la xam nga tey jii wax ji mooy euh, que ce soit forum du justiciable que ce soit la société civile euh, li am te liy dëgg mooy nabu positionnement bi nga xamante ne amoon nañ ko position yi ñu amoon ci ay jamono bi ñu jàppee ne Wade dafa bëggoon a éterniser wu au pouvoir boobu position la ñu war a am. Mm-hmm. y' a pas dix mille discours à tenir dans ce genre de situation là on dit Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs la question elle est simple et réglée une bonne fois pour toutes. Mhm. képp koo xamante ne da nga bëgg wàcc loolu nga xam ne la constitution bi wax mais taxawaayu forum du justiciable taxawaayu for euh, société civile euh, taxawaayu les droits de l'homme mhm. mais mooy ñu féete ak fi nga xamante ne foofu la askan wi nekk parce que askan wi fi mu féete mais loolooy dëgg na bu mhm. aujourd'hui on ne peut pas combattre on ne peut pas euh, on ne pas combattre loo xamante ne nii euh, maanaam yow à la limite ku la ci dégg sax mais daf lay xeeb. ci ci ci ci ni ngay waxee ak ci maanaam nit ñi ngay waxal nga yaakaar ne daañu la bàyyi xel ni nga bëggee ñu bàyyee la xel. Mhm. forum du justiciable normalement ci peuple la war a féetee société civile euh, ñoom ñëpp dañu war a en tout cas taxaw taxawaayu njaaxaanaay boo xamante ne bu fekkente ne opposition bi nekkul ci dëgg ñu mën a taxaw ne opposition nekkul ci dëgg mais bu fekkee parti au pouvoir également nekkul ci dëgg ñu mën a am le courage de leurs idées jàkkaarloo ñoom ne leen mais nekkul leen ci dëgg li nga xamante ne moom mooy dëgg mooy li ñu sentir muy xeeñ neexul parce que li ñu sentir xeeñ mooy ne dafa am euh, benn benn leader politique boo xam ne euh, parti ko bëgg pousser à ce que mu briguer une troisième candidature et loolu c'est inacceptable dans un état démocratique parce que lu ñu nangulul woon genre lu ñu ko nangul paate donc boo dee wax discours gu ni mel ou en tout cas boo dee délivrer message même bu fekkente ne c'est un message de paix allant dans le sens de d'assurer un peu la stabilité de ce pays war na fekk mu nekk sur des bases et des fondamentaux yoo xam ne ci dëgg rek la te dëgg gi nag kenn yoru ko du pouvoir du opposition dëgg gi askan wi moo ko yor nañuy li nga xam ne moom mooy gis-gisu askan wi pour nga am une partie Euh, majeure partie de la de, de la population boo xam ne moom lañ koy adressé mu doon discours boo xam ne ñi ñu koy waxal daañu leen dégg ci ni ñu leen war a déggee donc Babacar Touré bah écoute euh, il n'a qu'à parler jusqu'à demain en tout cas man je ne vois pas euh, vraiment kattan ak doole bi nga xamante ne am na ko aujourd'hui euh, Alioune bi nga xam ne dégguñu ko woon depuis un bon moment qui est sorti de sa réserve au bon moment d'ailleurs parce que soxla woon nañu société civile yu xam seen taxawaay ci yenn mbir yi euh, et que ñu dégg ko ci wàllu woowu et on a vu la société civile également être par exemple du côté de Pape Alé Niang bi ñu jàppee ne xëy na am na benn forme d'injustice boo xam ne moo fi am c'est ça le rôle justement d'une dëkk bi tamit bu dee da nga ragal a wax dëgg ba ragal ñu am fu ñu la féetale euh, parfois sax boo dee wax dëgg dañuy yaakaar ne yow dafa am foo far alors que yow faroo fen fi nga far mooy fi dëgg gi féete et dëgg gi mooy lu ñu dul nangul kenn du ñu ko nangul benn doomu adama bu tudd Macky Sall ak ay partisans am troisième candidature mënul am ci réew mi boo bëggee jàmm am fi boo bëggee li nga xamante ne moom mooy stabilité réew mi mën a dox danga nga naan ko ah attention il faut la constitution parce que constitution bi li mu wax ci wàllu woowu leer na jouir ci li nga xamante ne moom mooy seen ay droit d'opposant ñu mën ko def sans pour autant mu am lenn lu ñu leen collé ca gannaaw na yow boo génnee wax candidature ñu génne la rapport IGE boo génnee wax candidature euh, ñu génne la benn scandale boo xamante ne lié aux mœurs boo xam ne mu ngi lay topp depuis des années un dossier qu'on aurait dû élucider depuis des années mais on aurait dû régler ce problème depuis 2022 est passé ici rien ne s'est passé euh, finalement on se demandait même est-ce que dossier bi dafay dormir rek ci ay tiroir ba benn moment ñu war a taxaw euh, pour que ñi nga xam ne ñoom ñooy candidats yi ñu gën a mën a xam de manière claire ni positionnés wu en face du président de la République Macky Sall on voit des dossiers judiciaires yoo xamante ne mën na jural réew mi ay jëya yow taxawoo wax dëgg googu fu mu féete. Mhm. ngay am benn certain discours nit ñi daañu la déglu waaye nit itam euh, nit ku nekk xelam te ku nekk itam say nopp noppi garmi la li nga bëgg dégg ngay dégg li nga bëggut a dégg doo ko dégg nabu. Mhm. merci ma merci beaucoup ci pertinence bi dañ lay bàyyi nga souffler tuuti rek ñu daal di ñëwaat ci bi nga xamante ne moom la ñu nar a waxtaanee avant la revue des titres alors like leen ngeen euh, partagé comme ça ñu mën a ànd ci euh, waxtaan bi waaye démb euh, ngaala damay seetaan fii ci benn yenn média yi nii mm-hmm. mais dama gis que ni les gens étaient étaient offusqués wala ñi ma doon seetaan bokk comme si dañuy dañuy dañu dañu jaaxle ci nit ñi position yu ñu am par rapport ak cette opposition wala mu mel ni dañoo dañoo jàpp ne askan wi dañoo xaw a flanché jëm ci opposition bi mu mel ni c'est quelque chose de nouveau au Sénégal sachant que en 2011 ñun li ñu juddoo yàgg na yàggul mais 2011 on était là mais ñëpp dañu nekkoon euh, bouclier wu le président Sall bañ kenn koo xamante ne dina ko laal wala dara lu dal ci kawam. mu mel ni même épisode bi mooy répété wu waat moom la ñu indiwaat mu mel ni rediffusion ci li ñu dundoon bëgg ko dundaat au Sénégal et y en a parce que tout simplement dafa am ñoo xamante ne dañuy tranché wala dañuy wax li nga xamante ne mooy dëgg man li may laaj mooy ñun ñoo changé wala ñoom ñoo changé de 2011 à 2022 qu'est-ce qui a changé pour que ñoom ñu am jaaxle ci ñi nga xamante ne dañuy dañuy tranchant de de par leurs propos di nga wax fi nga xamante ne di wax li nga xamante ne foofu la dëgg féete mami nabu d' abord situation bi nga xamante ne moom la ñu dund 2011 wute na ak mhm. buy mhm. Euh, Macky Sall s'est s'est positionné en tant que candidat mhm. de l'opposition mais fekkoon na moom déjà il avait fait un travail au préalable fekkoon na moom déjà demoon na ci gox-goxaat yi voyagé na dugg ci ruq-ruqaat yi waxtaan ak ñi ñi faire ce travail de politique de proximité bi ma doon wax sànq donc ñi nga xam ne dañ ko accordé du crédit dañ ko accordé du crédit parce que il est allé vers lui moo tax man xam nga nee naa la fi benn jour euh, falub Macky Sall bett na ñenn ñi parce que c'était un candidat boo xam ne gisuñu ko woon ni ñu gisee Ousmane Sonko tey mm-hmm. d'où la différence Macky n'était pas un phénomène Ousmane Sonko est un phénomène du benn c'est pas pareil mm-hmm. Macky lan moo tax mu amoon doolee positionné wu ci wàll woowu c'est parce que am na ñoo xamante ne lu ñu bëgg-bëgg wadd lu ñu nekk wàddiste wala lu ñu far-far ak parti démocratique sénégalais ba ci au sein du parti d'accord ñu woon ak vision wàdd mooy ne lu fekk mu toog wala bu mënul toog sax mu bàyyi fi doomam donc ñii ñi forme d'injustice boobu ak ñàkk respecter li nga xam ne mooy suñu constitution li mu tënk loolu moo waraloon ay mouvement yu mel ni 23 juin Mm-hmm. et Macky a été intelligent de saisir également ci opportunité boobu pour que mu positionné wu en tant que opposant benn côté rek la xaw a nduru ak Ousmane Sonko tuuti mooy ne forme d'injustice bi ñu jàppoon ne Macky Sall dafa am lu mu ci dodoon dudd ci koo xamante ne accordé na une certaine partie de sa vie à la République sénégalaise que mu jëm ci bis bi yi mu amoon ak Wade mm-hmm. ñenn ñi jàpp ne dafa dafay subir injustice et ci subir injustice boobu par rapport ak candidat yi fi taxawoon moom c'était si tu veux le candidat qui se détachait du lot mm-hmm. donc loolu moo tax mu falu en 2000 2000 2000 2011 2012